travail boobu noonu il profite à qui exactement seen mouvement bi ngeen di def tey tout le monde euh, se détermine par rapport ak ki muy àndal vous jusque en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles vous vous êtes yéen ngi bokk ci parti démocratique sénégalais parti démocratique sénégalais ñëpp xam nañu ne Karim Wade mooy seen candidat. Mhm. Euh, vous vous n'êtes pas en de bons termes euh, euh, actuellement ngeen ngeen di dox mais a ngi def activité activité boobu ndax Karim Wade lay lay profiter wala Amadou Ba bi nga xam ne on reproche à votre leader. Mhm. mu mu jege trop Amadou Ba est-ce qu'il travaille pour lui ou pour Karim Wade. bon leader bi jege na Amadou Ba certes parce que nekk nañ ñoom ensemble dans. Euh, la fédération de Grand Dakar nekk nañ ensemble ci NGB bokk nañ lu baree baree bari ñoom ñaar peut-être proximité boobu kenn mënu ko bañ mais lim bokkal Karim ak lim gën a lim jege Karim jegewu ko ak kenn ci candidat yi. je reviens je reviens pour dire encore. pourquoi vous ne mouillez pas le maillot alors. Euh, euh, mouvement lay wax sànq dafa am benn particularité maanaam dafa permettre yeneen jeunes ak yeneen nit ñoo xamante ni non seulement ils sont apolitiques ñenn ñi même suñuy politique bokkuñu ci parti démocrate sénégalais ñëw adhéré. parce que dañoo gis seen bopp ci démarche bi nga xamante ni le maire Mohamed Djibril Wade am na ko bi ñu nekkee ci dynamique boobu on di dit pour les prochaines élections présidentielles présidentielle bii di ñëw ñun incha allahu dinañ déterminer wu Karim mun na nekk suñ candidat loolu il faut que ñu xam ko keneen mun na nekk suñ candidat il y a des candidats qui nous ont parce que il faut que ñu xam ne actuellement le mouvement dafa dem pour am une nationale qu'on peut transformer même demain en un parti politique mais tey autonomie boobu ñu am maanaam pour wane suñu bopp wane ko nous nous comptons dans ce euh, à Dakar que nu ne sommes pas un mouvement boo xamante ni dafay gunge kenn mais mouvement bu ñu ko war a compter sur l'échiquier politique la dañ ne dañuy jël suñuy responsabilité choisir librement le candidat le meilleur placé ou bien le, le, le yàlla a plus bon profil et le candidat également qui va intégrer suñu gis-gis si ndaw ñi suñu gis-gis si Sénégalu deme suñu dis gis également ci jub transparence ak leneen leneen leneen. su ma la déggee ngay actuellement moom amaguñ candidat ñu ngi ciy liggéey nit ñu ngi ñuy approché wu mais incha allah. bu yàgg dara on va se wu.